Salut les amis de eSport TV et de Babo Show. Merci encore Gaël de la confiance renouvelée. Merci de des likes, merci de des abonnés, merci également de baisser les commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois, de partager des informations. Box sénégalais, il fait folle Montenegro, 14 régions du Sénégal, Roukroukhari, Gorgokhari, Ninglen et Djadjofel, Ninek également, aussi la l'hôpital et sécurité de février, nous sommes bon fog sen bok ni rek jam ñi nek ci kasso yi ngeen xamné aussi erreur judiciaire gi ñi ñu def mo ko yobbu suñu borom gënal leen fa déloir leen seen njabot ñu déddu aduna suñu borom xal leen adina fi do ci gaay te yexé ñu on avance ensemble dans la magie de Baba Show et les TV. L'actualité en continu gars ak de ñu fas yéene donc lii di nouvelle bu wàcc léegi di Nicolas Jackson mi xam nag dafa forfait ci match contre Mauritanie bi qui nag di Abdelassima parti pour le remplacer Les plus ci di indi ñu fas yéene ko wasaare obligation de victoire à Nouakchott loolu daal la ñuy daal di def seen xët gu Mauritanie war le Sénégal donc dibeer gi euh, 16 heures, hein, donc euh, système euh, inhibé, le, système inhibe euh, les lions, donc comme on dit actuellement là, le match à également, on l'a plus chaud, record d'élutionner un derby pour se rattraper, Noachot croit un exploit des Morabitoun. le Sénégal aujourd'hui qui n'est plus, euh, qui n'a plus son destin en main, donc finalement on doit faire retour, bugué, desti kawakaw, dans RD Congo à Kataminingham. ni nga donc Soudan du Sud du dali yomb joueur yi ngeen puis gaay joueur yep yi golden euh, boy hein, donc muy meilleur jeune joueur ah gis ngeen si kàngam yëpp nekk nañ ci ah donc ci li nga xam mooy donc cérémonie bi ba muy am ba euh, léegi waaye nag saison bi di ñëw kii di Lamine mal daal moo nekk favori bi moom ak Warren Emery Kubasi Meno Savio Garnacho Yoro Neves Pavlovic Vermeulen gars yi daal ñoom fi ne nii ñoom lañ jàpp ne. ñu ci favori waaye ma si doon boole man am na yeneen jour yoo xam ne fii nii pour man am na ñeneen ñu leen gën a mérité nekk fii pendant ce temps Endrick moom euh, daan na wax ne moom tamit ah bu soyoon aussi le restant de sa vie da koy jouer du côté du Real Madrid nee na plus Real Madrid di gën a am ay joueurs yu mag plus moom muy gën a wane ma ne boppam gën a war a fexe ba nekk le meilleur joueur au monde ne loolu daal da koy daal di stimuler du ko wàññi dara kii nag nga xam ne mooy donc euh, Arda Güler waa Real nag jot nañu ay proposition proposition club yu bëri pour ñaar lañ koy aal waaye Real nee na abalewu ko tey abalewu ko suba abalewu ko ginnaaw suba qui nga donc Arda euh, Güler qui nga xam également aussi donc Julian Alvarez nga xamné club yi ngi baax baax Manchester City néna na jaayul waaye teewul Chelsea mi ngi insister Real mi ngi insister Paris Saint-Germain ñi ngi insister pour recruter l'attaquant donc euh, argentin de Manchester City ki nak tamit nga xam ne moom mooy donc euh, Luka Modric daan nay gis qui di José Mourinho nga xamné ne indi du côté de euh, du Real man nag mën ko duma la mës remercier ba mu doy ah légende merci pour tout te duma ma la mës a loolu la ko Luka Modric daal di sargale di José Mourinho pendant ce temps du côté de la national mannschaft muy l'Allemagne kii nag nga xam ne mooy donc Julian Nagelsmann nee na gars du ma jéem sax nekk fi di indi ay doute ak naan gauche droite neen daal Neuer mooy gardien numéro un Neuer mooy gardien numéro i du dañ tey du dañ suba du dañ ginnaaw suba loolu daal la fas yéene woon daal di xamle jëm nag ci match a a dajeeg Seychelles match boo xam ne aussi gars a Cap Vert dina tàng ah, dina tàng loolu parce que les Cap Verdiens voilà macha allah li ñu wane ci Coupe d'Afrique bu nekk ci même dynamique bi dina euh, graaw mauvaise nouvelle pour le Sénégal Nicolas Jackson nak, dafa dit am gagne, donc il est forfait contre la Mauritanie mom match contre euh, donc Congo bi la mi ap gaañu gaañu gay def nañ ay IRM bañ def IRM dal mom cheville bi mo am problème bi donc ndax dal du dog dal di jouer a dal daal nekk mauvaise nouvelle ñen nga xamna dañ ci wax naan non c'est bien fait tout mais quand même c'est une mauvaise nouvelle pour l'équipe nationale du Sénégal parce que c'est un joueur important Nicolas Jackson l'Émiraté muy raté rek mais c'est un excellent joueur et aussi Abdallah Sima serait appelé pourrait être appelé même à le remplacer dans le 11 maintenant Abdallah Sima bu moytu tout mon ko sax dugal ci 11 bi pour mu daal di koy remplacer mom wala Chérif Ndiaye mais en tout cas, ce sera un match, un match à gagner, un match également où il faudra tout donner contre la Mauritanie. La Mauritanie fait du défaite, au a défaite. Sénégal, Soudan du Sud, mon premier pour problème. Soudan du Sud, Sénégal, Kodoro, et mon match, beaucoup, comme on dit, les réalités.